dañoo tàmm à chaque fois bu at bi dee jeex euh, ñu jënd ay pétard même bu fekkee dañoo tere ay rassemblement et tout ça dans les quartiers par exemple chez moi euh, avec mes enfants euh, bu 31 décembre jotee dañuy jënd ay pétard yi ci kaw terrasse bi et tout ça mais souvent euh, dafay indi ay gàllankoor et que il faudrait que ngeen bàyyi ci xel faites-vous plaisir dundu leen ambiance festive bi def leen lu leen neex mais il faut ngeen bàyyi xel ni petaar yooyu itam mën na jur ay gàllankoor et comme chaque mardi Euh, euh, lii euh, tax yeewu leen bi di am solo Yacine dafay dugg ci sensibiliser ak prévention mieux vaut prévenir que guérir n'est-ce pas Yacine. oui mieux vaut prévenir que guérir euh, comme chaque fois rek. dañuy jéem a mhm. tout le temps nos thèmes ci actualité day tax nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax et on s'est rendu compte que si chaque année dina am li nga xam ne mooy ay accident xale yi dina am ñu ci perdre seen bët ñi seen loxo ñi ay incendie te li ko waral mooy utilisation bi parce que comme ni ma ko waxee c'est beau mais c'est très dangereux am na benn compil d'éléments bu ñu ci def après ñu ñëw commenter ko sur le plateau. Mm. yeah. Fine, aim it at me. Thanks, man. It's here. I'm probably sick. You said it doesn't fly. I'm sure it's fine. Just pick it up. See, there's nothing. Oh my God! Turn the camera off. Oh. ça n'arrive pas qu'aux autres hein. Ouais. ça ça peut arriver à tout le monde. ça peut arriver à tout le monde et c'est arrivé à plein de gens yi ma ciy gën a metti man euh, quand je suis l'historique des accidents mooy xale yi nga xam ne dañoo ñàkk seen loxo parce que dañoo téye pétard euh, bi mu explosé euh, xale yi suñ lay raconter ça te fait très mal parce que un enfant dañuy wax très souvent mën na def bêtise mais yenn yi waru ci kee fekk mais ñun mag yi dañ ci am wàll société bi ak organisation bi da ci am wàll alors pétard c'est rangé dans le dispositif des explosifs explosifs la mm. ci militaires yi dañ ko jëlee muy ay dynamite yoo xamante ne dañ ko dem ba wàññi ko ay degré yoo xam ne tey dañoo permettre nit ki war a mën a dund yenn émotion yi bu njëkk ba sax nit ñi daan ci am accès euh, nouvel an lañ ko daan utiliser armée moo ko daan taal ñu koy wax les pétards de type F3 F4 alors est-ce que c'est normé est-ce que c'est pas normé man damay jàpp parce que dafa am ce qu'on appelle les pétards de type F1 ba F4 f yi pour te dire xale bu am moins de 12 ans warul laal pétard alors xale yi ëpp accident yi nga xam ne seen loxo dañ ko ci ñàkk euh, Euh, mooy xale yi nga xam ils ont entre huit ans jëm douze ans alors kon jox nañ accès xale yi péta yoo xam ne waruñu ko utiliser mag yi aussi bëri na mag te yoo xamante ne ay prothèse la ñuy la ñuy téye seen benn loxo wala ils se sont défigurés bëggoon fête 31 décembre wala nouvel an moo leen ci indi alors ya a une manière euh, d'utiliser mais man damay gën a insister si li nga xam ne mooy euh, niñ ko war a normer tey péta kenn waru ko teye ci loxo soo gisee am na benn dernière image bi c'est faut parfois choquer pour la l'attention pour sensibiliser nit ki dafa dafa exploser complètement donc soo gisee sa su fekkee ne am na dina nekk kuy dund dafay nekk koo xam ne du am loxo du amati tànk parce que soo gisee dafa carrément daf ko propulser parce que comme j'ai dit c'est un explosif luy exploser mooy lu lay tas loo xam ne da nga ko téye sa loxo tey euh, nga war ko taal vitesse bi la c'est que ce qu'on oublie c'est que comme j'ai dit explosif la soo ko téyee si kaw dafa am li ñuy wax combustible mèche bi do soo ko taalee ak briquet da ngay foog ne da nga taal benn mèche alors que yow li nga taal c'est imbibé de combustible def nañ ci soit pétrole wala loo xam ne soo ko taalee rek day tàkk donc vitesse bi day gaaw soo ko téyee ci biir y a ce qu'on appelle benn niveau boo xam ne su fa pétard bi accès carburant daf fay nekk donc ça peut être un mélange en pour et n'importe quoi mais su fa accès day day day exploser day détoné wu et quand ça explose fekk nga téye ko donc day day tas donc pétard soo koy utiliser encore une fois déjà xale yi man je me dis waruñu ci am accès du tout mag yi koy utiliser loo xam ne da nga ko war a teg la parce que benn euh, soo gisee ñu wane ko nit ki daf ko téye temps bi mu koy taal mu exploser si loxoom donc loo xam ne da nga koy teg ci suuf la am na lenn lu ñuy faral di utiliser aussi pour di taal mooy briquet lii di briquet di allumer tout ça il faut éviter parce que temps bi muy jël ba nga koy taal di daw mën na tàkk sa kaw alors euh, ce qu'il faut euh, utiliser mooy chalumeau wala loo xam ne gudd na nga nekk à distance c'est-à-dire soo ko tegee genre allume gaz buy marché nga xam te ne euh, wala soo amee chalumeau voilà feu bi day génn nga nekk à distance fi nga koy teg tamit warul nekk goudron warul am xeer parce que yooyu yëpp su pétard bi euh, tàkkee ay projectile lay doon am na ñoo xam ne xeer moo moo bi pétard tàkkee xeer moo jël benn vitesse boo xam ne dafa bënn seen bët ñu décédé sur le ko xale yi nga xam ne aussi dañ koy kii c'est que on achète des pétards jox ko xale yi ñu téyee ko xale yi ñàkk se am na pétard bu ñuy wax mortier boobu soo ko téyee nii euh, vitesse bi dafa gaaw ba nga xamante ne bëri na tey 39 pour cent en France bi ñu defee les statistiques en 2019 xale yi ci ñàkk seen loxo yëpp 39 pour cent yi ay mineurs lañ donc dañoo téye mortier bi am ñoo xam ne mag yi ñoo koy jël nëbb ko fenn xale bi dem fekk ko fa donc je me euh, non seulement il faut pas que les enfants aient accès à ça mais aussi il faut éviter il faut le faire en plein air li ñu naan lu mënta ñaar ba pare sooy jënd pétard bi il faut toujours nga xool marque CE CE soo ko déggee na ma koy faral di wax si prise électrique yi si lépp luy installation en sécurité mooy euh, euh, benn affaire boo xam ne dañ ko def mu respecter les normes européennes c'est les normes sécuritaires d'habitude qui sont les plus strictes maintenant ñoo ngi koy càmbar ci réew mi ou pas dañuy wax rek nit ñi gën ci def attention parce que incendie day faral di am mais soo demee ci hôpitaux yi ak urgence yi bëri na chaque année xale yoo xamante ne ci la ñuy jóge am ci léget beneen bi ma si bëgg a teg su fekkee ne mën nga ma ko may apulaay am image bi c'est quelque chose bu may indiwaat parce que am na euh, pétard yu ndaw je pense que apulaay si la voilà non pas dërëm bi sax mais bi nga xam ne xale yi dañ koy téye mu def ay étincelle alors meilleur exemple bi ma ci am c'est les bougies à étincelle benn la parce que parfois même pétard yi mën na ñàkk nga jënd bougie à étincelle ñuy éviter tout ce qui est bombe je sais pas si voilà s'il a les images donc soo gisee fii nii waxuma doo exploser mais da ngay tàkk pourquoi parce que étincelle boobu soo ko joxee xale yi mu ciy fo on a souvent l'habitude d'utiliser des aérosols aussi pour faire la fête même anniversaire yeeg yëpp bii la ñuy utiliser voilà donc bi soo ko defee su la jàppee mm. mën nga lakk ba jeex. ay waxuma la exploser nga ñàkk ñàkk sa kii mais mën nga lakk ba jeex donc ñuy bàyyi xel ne c'est bien beau de de faire la fête. mais nañu xool ni ñu koy na dama doon wax chaque année armée moo daan faral di def ay feux d'artifice. dans les mairies mën nañ ko organiser que les professionnels di ko def mais que ñun amateurs yi ñuy def très très attention parce que di ut bonheur ba. Euh, lor sa bopp lor sa bopp jaru ko. voilà lépp lu ñu naq lépp lu ñu neexoon ñu koy def rek tere nañ ñu ko en 2020 malheureusement <laughs> mais. yàlla baax na il mm. faut quand même euh, xoddee ko balaa ñoo lakkale faites très attention faites mm. vos plaisirs mais pas trop d'excès mm. et puis ngeen bàyyi xel ci pétard yi surtout pour les enfants euh, ci quartier yi euh, na ngeen ci bàyyi xel merci en tout cas Yacine ma petite cousine ci alerte boobu la nga xam ni def nga ko par rapport ak pétard yi ñuy jëfandikoo waaye yéen nit bu wax ji neex ba ngeen fàtte xaalis baa ngi yéen a ko moom ay enveloppe la yoo xamante ni ci ay région la ñu ko dugal am na léegi ñu ko woote koo xamante ni bi mu tànnee région de Thiès Euh, fekk na fa enveloppe bu toll ci deux cent mille ban téléspectateur mooy dugaat ñu am lu ñu ko jox lu nekk ci benn région léegi lay doon.